yëkkati ab ziyaar di ko jëmale ci suñu kilifa di cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njabootuk cheikhul Xadim ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bu rëy bi nga xam ne ci la nekk di ziyaare bu baax kenn ci njabootam gi nga xam ne moom la féetale liggéey bii di sémb bi mu sémb ci wàllu jàng ak jàngale ak yare muy cheikh ahmad al badawi ñu cheikh mohamadul fadil ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd liggéey bi di ziyaare bu baax eh, waa daairatu muqaddamatul xidma di ci jiital suñu kilifa Cheikh Afia al imam di ko ñaanal yàlla moom it yàlla yokk ko wér yokk aw fanam ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bu màgg bii di leen sant bu baax a baax ci jotaay bi ñu amal ci jëmale ko ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaka sumb waaye di sant ci e, sàkku bi ñu sàkkoo ci nun nu taxawe ko te ñuy sant yàlla bu baax mu ñu baaxe ñu nekk ci di ci yëngu di ñaan yàlla mu àggale ko ñun ñépp nu fekke ko sëriñ bi ubbi ko njariñ liñ ci séentu lépp suñu boroom def ko ci xam naa ngir laltaay waxtaan wi rekk xam nañ ne eh, yoonu cheikhul xadim radiallahu anhu yoonu murit taxawal ay sémb yàgg na fee am simb yoo xam ne mbooleem yoon wi ñoo koy ànd taxawal ko tàmbulee ko ca jumaay njaareem ci 1918 yi nga xam ne ca lañ ko tàmbali liggéey ba jaar ci jumaay Tuubaa ji ak yeneen liggéey yu rëy yoo xam ne ay sémb la yu ñu naal ànd ko liggéey ko lépp ci ndigalul Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ginnaaw jumaa ji gis nañ fi sémb yu mag yoo xam ne ñi fi toogal sëriñ bi danañ koy yëkkati ànd ceeg taalibe yi ñu di ko taxawal ba li ci gën a jege mooy jumaay masaalikul jinaan ji nga xam ne bi ñu ko ubbeeg léegi yàggugut mu mel ne kon booba ak léegi ay simb mosu fee jóg yooyu yépp di jëmmal rekk yitte yu kawe yi nga xam ne ci la Sëriñ Tuba radiallahu anhu doon yar taalibe yi mooy alhimma bu ñëwee ci wàllu jàng ak jàngale muy wàllu éducation gis nañ ne yoonu murit am na ci ay liggéey yu am ama am solo yoo xam ne def na ko ci gis nañ fi ay jàngukaay yu mag yoo xam ne ña àndoon ak sëriñ bi ci ndigalul sëriñ bi ñoo ko taxawaloon muy buñ ñëwee ba ci daara yi sëñ mu dem daara yi Cheikh bu Bousso yu bari dégg nañ ko ba ci daara yi sëriñ Xabibu ak daa dëkk kër yu mag yépp ay daara la ñu gis fi ay maahid mooy ay jàngukaay yoo xam ne eh, ay kilifa ci yoon wi taxawal nañ ko fenn fu nekk ci réew mi tàmbalee ko ci maahid yi nga xam ne Cheikh Muhammadul Murtada radiallahu anhu moo ko taxawal ba ci nga xam ne Cheikh Ahmadou Mbacké moo ko taxawaloon ak yeneen xam ne njabootu sëriñ taxawal nañ ko ak taalibe yi mu mel ne loolu lépp ay jéego ak i taxawaay yoo xam ne mësta dakk ba gis nañ sax bu yàggut rek jaamiatu Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne dafa wàll bu jëm ci jàng ak jàngale ak formation loolu lépp jëm ci rek di jëmmal bëgg-bëggub sëriñ bi bi nga xam ne mooy ñëpp jàng ñépp xam seen diine waaye ñëpp defaru mu mel nekkoon kon cheikh mohamadul muntaqa xafizahu llahu wa nasara bi ko yàlla tegee ci bopp yoon wi daa yëkkati ab simb boo xam ne dafa jëm ci wàllu yar wàllu jàngale wàllu formation woo ci murit yépp ngir ñu ànd ak moom ci liggéey boobu waaye murit yépp ànd maase maase wuy ko ci ba tey ku dem ca barab ba ñuy taxawal sémb boobu danga gis ne liggéey ba ma ngay sori moo tax kon waxtaane sémb boobu nga xam ne ci lañ toll di sémb murit yépp sémbub jullit yépp sémbub réew mépp kon waxtaane ko lu jaadu la ngir ñu fàttali solo si mu am fàttali nekk ci biir ñu xam mooy lan dëgg dëgg dëgg loolu dana bokk ci liy dàggi suñu yitte dana bokk ci lu ñuy soññ dana bokk ci liy tax ñu gën a am motivation ci kenn ku nekk taxawaay ba nga ca doon taxaw nga yokk ko nga ful ko kenn ku nekk la nga doon def ci lu ñuy tudde sacrifice ngir liggéey boobu taxaw liggéey boobu sotti nga yokk ko moo tax kon waxtaan wi dañ koy tënk ci ñetti tomb rek mooy danañ wax tuuti rek ci gisiinu Cheikh Mouhamadul Mountakha ak taxawaayam ci wàllu éducation waaye wax ñaareelu tomb muy sëmb bi li nekk ci biir ak fi mu jaar ba taxaw waaye wax nag li nga xam ne solo la su mu am ci wàll yu baree bari kon muy ñetti tomb yooyu nga xam ne moom lañ bëgg a ci lañ bëgg a tënk waxtaan wi bu ñu seetloo bu baax a baax taxawaayu Cheikh Mouhamadul Muntaka dañuy gis ne ku yittewoo xam-xam la naka jekk yittewoo gim yittewoo xam-xam feeñ na ci ay waxam feeñ na ci ay jëfam ndax yàlla dafa def muy boroom xam-xam bu bëgg xam-xam bu sopp ñi nga xam ne ñooy niti xam-xam xam bu baax lii valeuru xam-xam ak ni mu doone lu mënta ñàkk ni mu doone cëslaay ci yoonu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ku déglu ay waxam ak i discours am da ci dégg lu bare bare muy dellusi ci ni ñu war a góor-góorloo ci xam-xam danay faral di wax ne war nañu góor-góorlu dellusi ci suñ bopp xam ne li jiitu ci lu ñu war mooy taxawu njaboot gi kon njaboot gi li ñu ci war mooy ñu xamal leen yar leen yar boo xam ne ci la ñuy mën a xame sëriñ bi xam gu wér danay wax ne wut xam-xam munta ñàkk loolu nag ñépp a ci yam rawatina ñi nga xam ne ñooy njabootuk sëriñ Tuuba mu ne sëriñ bi fàggul nañu lépp lu ñuy jariñ àdduna ak àllaaxira kon li des mooy fàggu xam-xam rek mu ne bu ñu xamoon li nga xam ne moom lañu ñu xam-xam di jox ci ay njariñ ni ñu xamee ni ñuy jariñoo ci lekk ak naan kon kenn ku nekk dana gën a góor góorlu ci sàkku xam-xam ba am ca lam ca war a am mu ne amul jenn jëfit joo xam ne mën naa wëy ca lal xam-xam lal lal taayu ko kon loolu lenn la ci ay waxam yoo xam ne ak yeneen yoo xam ne ku ko yàgg a dégg yàgg koo topp gis ne ku jox yitte yar ak jàngale ci ay kàddoom la waaye kàddu yooyu sëriñ bi waxtu wu nekk da koy jëmmal ci ay jëf ndax moom ci boppam rekk dafa sonn góor-góorlu ba am xam-xam bu yaatu waaye yemu ca taxawal ay jàngukaay yoo xam ne yu yaatu la yu am solo yoo xam ne dañu fay yare di fa jàngale waaye yëmu ci ku ne xam na ci moom ni mu ni muy terale boroom xam-xam yi ak ñi yëngu ci xam-xam àgg na ci jagle leen bis boo xam ne da koy yendoog ñoom at mu jot ñi yëngu ci xam-xam ci dëkk bi teral leen soññ leen dénk leen ñaax loolu yàgg na koo def lu jiitu muy nekk ci bopp yoon wi loolu lépp rek kon day jëmmal ak bëgg xam-xamam ak yittewoo ak xam-xamam ak fonk mum fonk yar moo tax li mu njëkk sémbu muy sémbu boppam jiital ko mooy naal wi nga xam ne naal na ko muy projet bu mag bi nga xam ne taxawal na ko muy mu jëm ci wàllu jàng ak yar ak forme ca loola it da ko sof rekk ci bëgg-bëggub sëriñ bi nga xam ne moom waxaloon na boppam ne bil mustapha li banal qudduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabadu muy daara jooju nga xam ne ñi ñi jiitu woon sëriñ bi ñépp kenn ku ci nekk def nga ca sa yéene ak sa taxawaay waaye li mu sémbu yi dafay jëmmal rek li sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bëggoon ci dëkkam bi ca ñaanoon ko muy nekk dëkkub xam-xam nekkub dëkkub gëstu nekk dëkkub yar nekk nekk dëkk boo xam dañ fiy dundal xam-xam wajcalhu daban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana alirshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi kon sëriñ bi lii mu taxawal dafa jëmmal li nga xam ne mooy xam gi mu xam solos éducation xam gi mu xam ne lu mënta ñàkk la xam gim xam ni mu toll ci biir liggéeyal sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu kon loolu moom la sémb bii di jëmmal rek bu ñu delloo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci juróomi fan ci février ci 2018 bi mu wootee fii ci kër sëriñ Tuubaa woo njaboot gi di leen yëgal naalam bi bokk na ca la feeñ ca kàddu ya mooy dey lii mu sémbu dafa dugg ci liggéey bi muy liggéeyal Sëriñ Tuuba ci xitma bi la dugg feeñ na ci ne yàgg naa nësër daara joo xam ne ñépp a koy bokk mu nekk daara joo xam ne dafay mottali yéenay Sëriñ Tuuba ji nga xam ne amoon na ko ci am fi jàngukaay boo xam ne fu lu waay soxlaa xam lu ci sa diine ci lu lay jariñ danga ko fi xam lu see feeñ na ca kàddu yooyee ne li nga xam ne moom lañu fi sëriñ bi bàyyeel liñ koy mën a dundaleel mooy xam-xam moo tax ci biir kàddu yooyu wane na ci ne li jiitu ci li nga xam ne mooy yitteem mooy xam-xam waaye wane na it lim bëgg ci biir jotaay boobu wane na lim bëgg mooy jàng boo xam ne day tàmbule ci suuf ba ca njobaxtan la muy lu matali sëkk wax ne moom léppam dana ko ci jëmale ngir mu sotti kàddu gu am solo ci kanam njaboot gi mu feeñal ci biir nga nga nga mën a dégg ca kàddu yooyu boo ko dégloo bu baax a baax xër bu sëriñ bi xër ci liggéeyal sëriñ Tuubaa radiyallaahu waaye liggéeyal ko ci wàllu xam-xam waaye liggéey boo xam ne day tolloog jamono ba waa jamono jëpp mën cee jariñu da dégg ci biir waxtaan woowu xabe ci sëriñ bi gis-gisam bu sori ak yitteem ju kawe ku am li ñuy wax vision bu sori la ndax koo xam ne ma ngay xool bay tudd ñetti téeméeri at di xool dëkk yoo xam ne am nañ lu ëpp junniy at ñu xam leen ci xam-xam xam leen ci yar mu bëgg tuubaa yéene sëriñ bi àgg ba fu ñu tëdd tudde dëkk yooyu tudd fa tuubaa tuubaa mën naa dem sax ba jiitu dëkk yooyu ci wàllu xam-xam lépp ci ab pësteef lay aju ak dogu ak pas-pas waaye ñu gis ci biir jotaayu sëriñ boobu ak waxtaanam li nga xam ne wane na ko ci fonk ak doyloo njabootu sëriñ bi ba yëkkati naal wutal nii jiital leen ci teg ko ci seen loxo jiital ci nag daayiratu Rawdu Rayaahiin di nga xam ne sëriñ Ahmad Badawi Cheikh Mahamadou Fadil moo ko jiite kon loolu lépp rek lañ koy jànge ci biir jotaay boobu nga xam ne moom la toogoon ci 5 février 2018 yëkkati kàddoom yu am solo yu riche lool yoo xam ne loolu lépp mën nañ ko cee jàng kon loolu dañ ko doon wane rek ci sëriñ bi ni mu yittewoo woon ni mu yittewoo xam-xam ci ay waxam ci ay jëfam ba lii projet bi ñëw jëmmal loolu lépp kon nag fi projet bi jaar xëy loolu lu lu gudd la waaye dañ koy tënk rek ci wane ne sëriñ bi day bi mu wootee woote boobu joxe ndigal loolu ñi nga xam ne ñoom la jiital ci liggéey bi ci jiital sëriñ Ahmadu Badawi ak dayru Rawdaan ak mboolem ñu yëngutu ci xam-xam ci yoon bi ak fuñ mën a nekk dañoo daal di songu liggéey bi ngir jëmmal bëgg-bëggu sëriñ bi ngir jëmman gis-gisu sëriñ bi daal di nosu nosin woo xam ne la sëriñ bi waxoon ne dafa bëgg jàng boo xam ne day tàmbale ci suuf ba ca jobaxtal la ñu jàngat la nekk ci biir loolu lépp waaye it sëriñ bi dàkk bi mu dàkk ni bëgg na Tuubaa yegg ci dëkk yu xam-xam yi ñu xam lu mel ne madinatul munawwara basra kuufa loolu ab junj la ab junj la moo tax ñu ne kon kat fii moom li jiitu ci am njàng mooy njàngum alquran ñu daal di am ñu féetale dénk leen ñu saytu daara ji nga xam ne mooy féetewoo njàngum alquran kon créer ay commission technique yoo xam ne ñoo taxawu liggéey boobu mu am commission boo xam ne moo doon liggéey ci wàllu njàngum alquran ndax mooy baas bi mooy fondement bi lépp lu ñuy xam tabax ci lislaam ci alquran dañ koy balloo ci li nga ne moom la sëriñ bi jiitaloon ci lépp moo tax alquran jooju moo jiitu mu am commission boo xam ne njàngum xam-xam ñi nga xam ne moom la ñuy wax majalis te réewu lislaam yu mag yépp réew moo dem ñu am seen njàngum cosaan moo xam ne xam-xam ba ca nekk duñ ko sàggare wenn waxtu dañ koy dundal dañ koy fonk nga xam ne base lay doon boo xam ne ku ca déparé lépp luy xam-xam da ko mën a rafetal muy majalis ñu xam ci dëkk bi mu ànd ak yoonu murit ñu xam fi ay daara yu mag njàng moomu kon am na commission boo xam ne moom la féete woon di ca liggéey commission boo xam ne jàngu yi fi nekk te nekk jàng moo xam ne dafa am ay cycle ay maraaxil muy marxala ibtidaaiya i'daadiya ak taanawiya ñetti marxala yooyu am na commission boo xam ne moo ci doon liggéey ngir xoolaat programme ya saytu ko tëral ko anam boo xam ne dana dëppoo ni sëriñ bi bëgg ci anam goo xam ne lépp lu ñu soxla ci xam-xam dana ko danañ ci mën a waajal ka ca nekk ba fu mu bëgg àgg ci wàllu xam-xam mu man faa àgg mu am commission boo xam ne it dañ koo bàyyi xel ñi nga xam ne dañoo mokkal alquran ca bu ñu leen bàyyee ñu dugg ci système bi ci at yooyu loolu mën na leen a gàllankoor te seenu seenum xel ak seenum ñaw may na leen ñu am programme spécial boo xam ne at yi ñu weesu woon ci njàngum alxuraan du gàllankoor dara ci liñ war a jàng ci système bi kon muy commission alxuraan commission majalis ak commission bi nga xam ne moom mooy madrasa nizamiya mooy jàngukaay yi nga xam ne dafa am ñetti cycle yooyu ma wax ak bi nga xam ne moom dañ koo jagleel ñi mokkal alquran ndax ku ne xam ne dëkk bi dëkku alquran la li ëpp ci gone yi dañuy mokkal alquran doog a tàmbali beneen njàng moom it ñu bàyyi leen xel ak beneen commission boo xam ne moom mooy enseignement supérieur ndax sëriñ bi ni mu waxee ku dégg ay waxam da xam ne buñ nee ci suuf ba te njobaxtan la njobaxtan la mooy enseignement supérieur nit ki fa nit war a mën a yem ak jàng loola daara ji waajal nañ ko noo xam ne man nag nit ku fi nekk mën ngaa àgg foofu kon juróomi commission yooyu boobu lu tax ñu tërale ko noonu mooy sëriñ bi ni mu waxee boo ko dégloo bu baax da ngay xam ne ak système éducatif boo xam ne dafay matale ci niveau yëpp matale ci fànn yëpp moom lay jujj moo tax ci loolu ci lañ liggéey ngir bu ne bëgg na Tuubaa mel ni dëkk yëpp loola ku ne xam na ne muy dëkki xam-xam yu mag yi Madina Kuufa Basra yu xam leen loolu bu ko waxee ak junj la ci na kon li ñu wax nahda ilmiya la bëgg mu am mooy li sëriñ bi naaloon ci dëkk bi ci lépp lu waay bëgg a xamlu ci ci ci xam-xam bu am njëriñ mu mën ko fee xamloo kon loolu ab système moo ko moo koy maye moo tax kon ci loolu biñ ci liggéeyee ci lañ tëral programme daaray alquran ak nam war a doxe teg ci daaray majalis ak nam war a doxe waaye teg ci programme jàngukaay yu tàmbalee ci marxala ibtidaaya muy cycle primaire ba cycle secondaire moom it ñu tëral programme yoo xam ne dañ koo sukkandiku ci programme yi nga xam ne mooy njàngale bi fi nekk ñu xool la war a dolli ci dëppoo njàngaleem sëriñ bi ñu dugal ko ca xool la nga xam ne man nañ ko caa génne te du yàq ca lañ war a xam wala lañ war a man dara lu lépp ñu liggéey ko ba mu ba mu dëppoo ñi nga xam ne mooy gis-gisu sëriñ bi ci wàllu jàng ak wàllu yare kon am nañ programme boobu waaye amal nañ programme it ñi nga xam ne ñoo mokkal alquran nga xam ne shahada wala diplôme yi nga xam ne moom la ñuy am mën a amee ci école formelle yi dinañ ko ci mën a amee te duñ am benn tardement ci seenu njàng waaye ñu tëral ay programme ngir ñetti faculté yoo xam ne dinañ ko détaillé ci kanam tuuti kon loolu boo gisee ñu liggéey ko mooy sëriñ bi ni mu waxee ci lañ dégg ne am système la war a doon boo xam ne bàyyiwul dara ci anami njàng yi ak ci xeeti njàng yi fas bi nga xam ne nag moo jiitu ci système boobu te dëgg-dëgg muy naa wala ab jàngukaay nag boo xam ne day soqikoo ci biir programme yooyu mooy daara jii nga xam ne moom la sëriñ bi naal ndax daara ji sëriñ bi naan nga xam ne tey liggéey ba tàmbali na ba sori lool moom ci programme yooyu ñu tëral am na ñett yoo xam ne moom lañ fay tàmbulee moo tax sëriñ bi tudde ko mu jamma mu jamma Cheikh Ahmadul Khadim di tarbiyati wa takwin muy complexe Cheikh Ahmadul Khadim ngir yare ak mu formé loolu kon mën nañ ne ab établissement la ab jàngu la ci biir ab système bu yaatoo loolu dafa mat nit ñi bàyyi ko xel daara ja it sembu ñu bari de baatu université dafa gën a not ñu bari di wax université waaye ëpp na université ab mujammaa la ab complexe la boo xam ne dafa ëmb njàngum alquran ëmb njàngum majalis muy xam-xamu diine xam-xamu lislaam waaye ëmbaale ab université ci biiram kon complexe la bu yaatu boo xam ne yooyu ñoo nekk ci biir complexe boobu nag nga xam ne ay programme am bind nañ ko ba noppi ci lépp ci ni ko sëñ bi bëggee woon ñu gaarale ko noonu leeral nañ ci programme complex bi li nga xam ne moo tax complexe bi jóg muy mu jamaa bi leeral nañ ci li nga xam ne mooy ruya bi ko lal muy vision bi ko lal wala gisin bi ko lal leeral nañ ci li nga xam ne mooy objectif yi nga xam ne moom la ciy séentu waaye leeral nañ it programme bi te war a nekk yëpp ba tëgg ko loolu yëpp it luñ ci def mooy na ko sëriñ ba bëggee woon sëriñ Ahmad bi nga xam ñu koy nuyuwaat ndax ñu ngi ci jotaay bi euh, di ko ziyaare bu baax a baax fuñ ci toll daf koy gaaral sëriñ bi déglu ci bëgg-bëggam déglu ci xalaatam lépp dëppoog ni mu ko xalaate woon la ñuy leeral ci jubluwaayu mu jamaa bi mooy rekk bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ndax sëriñ bi ku ne xam na ne dafa bëggoon ñu boole ñett al ilmu naafi wal amalu saalih wal adabu mardi loolu sax mooy devise u complexe bi mooy chiar bi nga xam ne mooy màndargam jàngu ndax ñett yooyu xam-xam bu ànd ak jëf waaye bu ànd ak ay teggin kon loolu mooy chiar bi moo tax daara ji li ko tax a jóg dëgg-dëgg mooy yar nit ñi former ko mu boole xam diineem bu baax a baax waaye xam am man-man ak compétence yi nga xam ne dund gi laaj na ko développement laaj na ko fi àdduna tollu laaj na ko kon li jiitu mooy forme jàngal nit ki formation bu matale ndax bokk na ci jafe-jafe yi ñuy am ci àdduna bi njàngale moo xam ne da dul boole compétence yi nit ki war a man ak jikko yi mu war a melowoo ak aw nekkinam loolu ay jafe-jafe la waaye li jàng bi moom li ko tax a jóg mooy xam-xam bu ànd ak jëfe waaye ànd ak ay teggin ak i jikko waaye dundal gëstu ak yaatal xam-xam ci anam goo xam ne mënees na ci jaare développé réew mi ba sax lu weesu réew mi ba sax bokk ci luy def jëmale kanam àdduna waaye bokk na ci liggéeyu barab bi jàngu bi mooy tasaare njàngaleem lislaam tasaare valeur yi lislaam indi ci àdduna bi yépp waaye nag jaarale ko ci ñi nga xam ne noonu la ko Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngale nga xam ne kon gis-gis bi ko lal rek mooy li sëriñ bi waxoon ne bëgg na Tuuba mel ni bay wax ne wajaalu daban maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi kon loolu lenn la rek ci yoo xam ne ndax lu ci bare bari lu ñu mën a àgg ci détail yëpp waaye dañuy joxe ay junj rek bu ñu demee nag ba ci biir daara jooju nga xam ne moom la sëñ bi naal ci liggéey ba tàmbali ba sori lool am na fa ñeenti pôl maanaam ay waxdaat mooy ay pàcc bu ñu demee dañ fa fekk pàcc pàcc boo xam ne moo jëm ci daara yi alquran daara yi alquran bi ni mu ni muy tëddee nañ fay jàng nañ fay natte ñay jàng ak nañ fay duggee nañ fay nekk lépp moom it tënk nañ ko ba nga xam ne amul maanaam daanaka mën nga ne luñ mën a daal tàmbale jëfe la mënees na koo jëfe waaye biir daara ji nag infrastructure yi nga xam ne moom moo aju ci daara yi alxuraan bi am na fa ay dëkkuwaay ay bâtiment yoo xam ne dañ fay dëkk man ñett ak bâtiment yoo xam ne fa la ñuy jànge ak centre boo xam ne dañ fay centre de santé la ak ab restaurant kon loolu mooy li nga xam ne boo demee te daara bi moo fa nekk ci ay infrastructure yoo xam ne liggéey ba sori na lool amaat beneen pàcc boo xam ne moo jëm ci daara yi ji nga xam ne moom it tënk nañ programme yi séddale ko ci ay niveau ba nga xam ne ku ca génne danga mën a am niveau lisance mën a yeggale sam njàng ba def master ba def doctorat insha allah mu doon moom it ñu jagleel ko fa ay barab yoo xam ne bâtiment yoo xam ne fa la ñuy jànge bâtiment yoo xam ne am na restaurant ak bâtiment yoo xam ne ay ñàkkukaay la yooyu yëpp dañu dugg ci détails yi ndax plan yi am na gis nañ ko ci it ku yàlla dox nga dem ba ca barab ba da gis ne liggéey bu ma ngay sori moo am it liñ jagleel université bi mooy taalibul aali te moo am ñetti faculté am na faculté boo xam ne moo yor njàng te la ñuy jàngalee lislaam ak lépp lu jëm ci xam-xam yi lislaam yi jëm ci ñi nga xam ne li sëriñ bi jiitaloon ne li jiitu ci xam-xam yi mooy pas-pas ak xam-xamu fiq bi lay xamal nooy jaamoo yàlla ak nooy jëflante ak xamu tas xam-xamu tasawuf bi nga xam ne mooy defar sa xol di la jegeel sa borom loola xam-xam yooyu lañ ci jiital ak mbooleem xam-xam boo xam ne ku génn ci kulliyetu asharia wala kulliyatu dirasat islamiyya danga ko am programme bi ëmb na loolu waaye am lépp loo xam ne dirasat arabiya la kon mooy faculté des études islamiques et arabes boobu mooy faculté bi ci bi ci jiitu faculté boobu kon ñaari département la am mooy département études islamiques ak département études littérature et études arabes moo am foofu it institut boo xam ne dañ fay tàggate ci lu jëm ci at tamwilul yi mooy li nga xam ne mooy finance islamique te lu am solo ndax barab bu mel ni nga xam ne dañ fiy liggéey barabu liggéeyukaay la ci liggéey bi yépp ñu bëgg koo teg ci anam boo xam dana bokk na ci la fay am mooy benn centre de recherche boo xam ne lépp lu ñu soxla gëstu ndax loolu bokk na ci li nga xam ne lu ñu aajowoo la lépp lu nit soxlaa gëstu ñu man ko fay gëstoo waaye lépp loo xam ne ay centre documentation lépp document bu bu ñu soxla man mu man faa am loolu bàyyi nañ ko ci xel ak i laboratoire ak i ak i ak i ak i bureau ginnaaw faculté boobu mooy curie al islamiyya wal arabiyya am na beneen faculté boo xam ne moom moo jëm ci wàllu métier yi ak jëm ci wàllu technologie muy uliet technologie wal xeraf ku ne xam na ne barab bi barabu liggéeyukaay la te xam nañ ne fi liggéey fi jamono ci toll xam-xam moo ko war a lal du rek ay loxo waaye xam-xam moo lal mooy lal mooy lal liggéey boobu te xam nañ ne développement tey mi ngi aju ci wàllu technologie ak ay métier moo tax foofu ñu jagleel ko faculté boobu nga xam ne boo fa demee da nga fa fekk lu war a mat juróom-benni juróomi département ndax da nga fa fekk département boo xam ne dafa jëm ci wàllu artisanat te foofu lañ fa gën a fésal ci jamono ci ci ci bi mooy lu jëm ci der ak lañ ca mën a def ak lañ ca mën a liggéey te loolu ku nga xam ne lu yaatu la lu am njariñ la ci barab bi ñu nekk am na fa département boo xam ne ci bâtiment ak travaux publics la jëm ñetteelu département bi mu jëm ci électromécanique ñetteelu ñeenteel nag mu jëm ci wàllu informatique ak télécommunication mooy lu jëm ci xarala yi jëm ci jokkaloo ak bu jëm ci juróomeelu département bi mooy bu jëm ci haute étude commerciale lu jëm ci wàllu yaxantu ndax lu lépp dañoo xool barab bi li mu soxla ci ay man-man loo xam ne tey développement réew mi soxla na ko ñu jiital ñu jiital yooyu ak yeneen yoo xam ne euh, waajal nañ ci ci ci wàllu boobu ndax ku ne xam ne am na yeneen domaine yoo xam ne ci priorité yi la bokk lu mel ni santé ci la bokk mu am beneen kulli beneen UFR mooy kulli rek mooy benn lu jëm ci wàllu mbay lu jëm ci wàllu aliment ak technologie alimentaire mooy science agronomique ak technologie alimentaire loolu benn faculté la boo xam ne moom it boo demee da nga fekk lu man ñetti département département boo xam ne moo jëm ci wàllu agronomie nga xam ne lépp lu jëm ci mbay ak la ca aju ca lañ koy fa lañ koy tàggatoo ak boo xam ne dafa jëm ci élevage ak production animale mooy lu jëm ci sàmm ak lu aju ci lu ca aju ak boo xam ne dafa jëm ci technologie agroalimentaire mooy ñu ñuy soppax di ko li ñuy bay ba mu nekk lu ñuy jëfandikoo muy industrie bu yaatu bu am solo loolu mooy li nga xam ne mooy ñetti département yi nga xam ne moo nekk ci faculté boobu kon ñetti faculté yooyu mooy enseignement supérieur kon nga gis ne loolu mooy li nekk ci daara ji nga xam ne moom la sëriñ bi naan kon daara ji ñu bàyyi xel ne complexe la boo xam ne dafa am daaray alquran ci biir am yi majalis ci biir am ab université ci biir kon loolu lu mat a ràññee la faculté boo ci dem am na ay ba saal yu yaatu yoo xam ne yu ñuy mën a jàngale ak di fa def ay jotaay yu mag ñu koy wax ay amphithéâtre am na ci boo xam ne bu mag lay doon euh, boo xam ne nag ak juróomi téeméer ñoo fay ñoo fay mën a nekk ak yoo xam ne moo gën a ndaw nga xam ne dana mat juróomi téeméer dina am ay restaurant dina am ay euh, dëkkuwaay ci biir faculté yooyu moo am nag beneen pàcc boo xam ne moom moo jëm ci li université bi yëpp bokk mooy bâtiment administratif yi ak li ñuy wax service commun nga xam ne université bi yépp pàcc yépp a ko bokk mooy lu mel ne rectorat li nga xam ne moom saytu doxinu bi lu mel ne bibliothèque boo xam ne ñépp koy bokk muy daara bi yépp a koy bokk ñoom les médias rek nga xam ne fii technologie toll ak nouvelle commu euh, nouvelle nouvelle technologie de communication lépp léegi dañ koy numériser maanaam di ko jëfandikoo ci euh, ay ordinateur ak ay son ak ay vidéo dina am barab boo xam ne loolu lañ ko jagleel dina am it euh, jàkka yoo xam ne ku fa dem danga nga gis ne tey sori na macha allah. dina am barab boo xam ne dalukaay lay doon dina am centre de santé kon loolu ci tënk rek mooy li nga xam ne moom la projet bi làmboo ci barab bii nga xam ne mooy barab bi sëriñ Abdul Ahad jagleeloon université bi ci Cheikh Saalihu radiallahu anhuma ñëw ko ba mu sori boobu la foofu mooy bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha def mooy mu jamaa Cheikh Ahmadul Khadim li tarbiyati wa takwin liggéey yooyu nga xam ne nag kuréel yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Badawi jiitu jiite cañ doon saytu liggéey boobu am na yeneen yoo xam ne sottal nañ ko ci wàllu jam aju ci projet bi doon yoo xam ne yu bënta ñàkk la mooy lu jëm ci li wax cadrage juridique ak institutionnel maanaam mbir mu taxaw mu nekk am na aw doxiin bu ko war a lal am na ay texte yoo xam ne ca lay tënku loolee nag tëral nañ ko ba nga xam ne dana dëppoo doxiin bi dana dëppoo ñi nga xam ne noonu la dëkk bi bindoo noonu la dëkk bi laaj noonu la daara ju nekk Tuuba war a mel waaye dina doon texte yoo xam ne dina dana tax fépp képp koo xam ne génn nga fi foo dem ci àdduna bi diplôme ba yor dafay nekk di diplôme bu ñu reconnaître kon mooy ner norme yi nga xam ne ci la daara di taxaw ci la jàngukaay bu mag bu kawe di taxaw muy université norme yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel ci li nga xam ne moom lu ñuy sumb ndax mbir mi kat buñ koy sumb dañ koy sumb ngir àdduna bépp man cee jar ku fi génne it foo dem gis ne fii nga génne kat li fi nekk qualité la ca ñi nga xam ne ñoo doon liggéey loolu yàlla dafa dogal mooy ñi nga xam ne seen xam-xam gën a kawe ci wàll boobu ci biir réew ñooñu ñoo ànd ak mm, kuréel bi bi samp liggéey liggéey boobu kon jot nañoo def texte yi nga xam ne moom moo yor moo lal université bi moo lal daara ji ni mu war a dox yépp texte yooyu yépp noppi na te ñu sukkandiku nag ci texte yi nga xam ne moom mooy dox ci mooy mooy mooy dox ci biir réew mi cay cay tënk ni université di doxe waaye nag bàyyi ci xel maanaam spécificité bi nga xam ne Touba am na waaye commission comité boobu nga xam ne mooy comité de pilotage bi nga xam ne ñoo doon yor liggéey bi lépp loo xam ne lu complexe bi aajowoo la ci ay ña fay liggéeyee moo xam ñuy jàngale lañ war a doon wala ñu fay yor yeneen liggéey ci biir loolu lépp tënk nañ ko seeni compétence yañ war a am profil yañ war a am xelite gañ war a am loolu lépp lu tënk la ba mu nekk document boo xam ne bu noppi la waaye comité boobu it lépp loo xam ne lu ñu liggéey la ci barab ba ca architecte yi doon ko defar ci ay plan ñoom ñoo ci àndoon ak ñoom ngir mu dëppoo ni ab jàng war a tëdde ngir mu dëppoo norme yi nga xam ne laaj la loolu yédation ba comité boobu commission comité boobu euh, def nañ ko ba ci sax ni daara ji war a bindoo maanaam identité bi mu war a am ci identité visuelle li ñuy wax identité visuelle bi lépp war a dëppoo dëkk bi war a dëppoo euh, suñu li ñuy wax suñu culture maanaam culture yoonu murit dëppoo environnement bi lépp dañ ko cee bàyyi xel ba loolu lépp validé nañ ko ba nga xam ne ñi liggéey ña nga ca ba sori ca waaye nag mu am kuréel yu am solo yoo xam ne taxaw nañ am ñu féetewoo ci liggéey bi mooy ñi nga xam ne ay bibliothécaire lañ ak i documentaliste ak archiviste yooyu ñëpp ñi ci seen xam-xam gën a ànd nañ ak euh, comité liggéey liggéey bu am solo bi nga xam ne ne la bibliothèque war a mel ni mu war a doxe loolu ñi ci seen xam-xam gën a kawe liggéey nañ loolu lépp ba nga xam ne tey bibliothèque bi norme internationale lépp loo xam ne nit qualité bu gën a baax moom moom mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ moom lañ tërale bibliothèque bi nga xam ne moo am ci ci biir liggéey bi waaye am na kuréel boo xam ne ñoom ay informaticien lañ ñoom it dañoo lépp loo xam lu jëm ci site bi la ñoom ñoo ko liggéey lépp lu jëm ci luy lu ñuy xamle liggéey bi te di ko jaarale ci jumtukaay yu xarale yi ñoom ñoo ko doon saytu mu am beneen kuréel boo xam ne it ñoom ñoo féete woon traduction bi muy tarjama kon loolu dañ koy wax ngir liggéey bi fam jaar ay phase la ndax commission pédago commission pédagogie yi ak wala commission commission technique yi ñoom ñoo liggéey programme yi ak lépp programme yoo nga xam ne architecte yi ci lañ sukkandiku ko defar plan yi yëpp waaye mu amaat yeneen kurél nag yoo xam ne euh, mooy informaticien yi mooy traducteurs yi mooy euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ay bibliothécaires yooyu yëpp ay kuréel lañ yoo xam ne ñu liggéey nañ ci liggéey bi mu mel ne kon liggéey bi képp koo xam ne tey taalibe te am xam boo xam ne gis nga ne xam-xam bii kat barab bi soxla na ko complexe bi soxla na ko indi ko gaaral ko bokk ci liggéey bi mu doon loo xam ne kenn ku nekk da nga koo def muy xitma boo xam ne da koy liggéey da nga koo ba nga xam ne tey tënk nañ document boo xam ne rapport la boo xam ne lépp lu ñu fi wax ci ay programme ak ay texte ay document yu aju ci complex bi mi ci biir document boobu tey bu ñu koo xoolee ci ay page àgg na ci trois cent vingt-huit page maanaam ci ay xët àgg na ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett kon loolu luñ tënk la rek ci liggéey bi euh, ni mu tëddee ak li ci juddoo ngir ñu mën a xàmmee ne bu ñuy commission yi doon liggéey kat liggéey nañ ci système bu yaatu système boobu nag ci biir lañ jukkee li nga xam ne moom la sëriñ bi wax ñu tàmbulee ko ci daara ji loolu nag xëy na mooy tomb bi ciy mujje mooy liñ mën a jàppe ay maanaam luñ ci mën a séntu njariñ wala ñuy wax ay enjeux yu ci man a nekk njariñ li moom jàpp naa ne lu jëm ci wàllu yar ak jàngale fii ci fi réew mi toll fi àdduna bi toll rawatina muy loo xam dañ koy sukkandiku ci yarum sëriñ Touba ak njàngaleem sëriñ Touba loolu soloom yaakaar naa ne lu rëy la lu am solo la ndax xam nañ ne éducation ci boppam ak yar ak jàngale mooy yoon bi gën a baax ci defar nit ci waajal ko ngir ak dundam mën a jag ci àdduna waaye mu mën a texe ëllëg ngir nit ki am saadatu daare bi mooy texe ak ak texe ëllëg loolu li ca gën a am solo ci teg ko ca yoon ba mooy yar ko waajal ko jàngal ko moo tax yonent yi fi mos jaar yépp seen yitte mooy defar doomu aadama yar ko moo ci jiitu loolu yi Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xam nañ ne yar moo doonoon mission bi jiitu ndax yoonu murit bu juddoo yar moo tax mu judd ndax yoonu yar la yoonu defare la te moom yar bi nga xam ne ci la jaarale ñi àndoon ak moom mooy yar bi tax nit ki texe tey ndax dana ko waajal ci jikko yi mu war a am lim war a xam waaye lim war a man ba mën a dund ci kaw foofu man a jaamu yàlla loo xam ne ëllëg dina tax mu texe kon moom yar bu mel noonu la yar ba tax yar boobu moo jur ay génération yoo xam ne ay royukaay la ci wàll yépp moo jur lii nga xam ne moom lañ gis muy yoonu murit ñu xam ñu xame ko ci liggéey ñu xame ko ci nekkin ak melokaan woo xam ne wu ràññiku la kon yar boobu nga xam ne moom la si bi doon yar bépp bu ñu am bu ñu xamee ne kat lii taxaw yar boobu moo ko lal yar boobu mooy philosophie yar boobu mooy vision loolu jàpp naa ne loolu rek doy na wax solo si am ndax xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu yar bi mu yar da ko teg ci liimaan lislaam lexsaan moo ci jiitu maanaam nit ki mu yar ko ci pas-pas gëm yàlla bu wér gëm melokaan suñu borom yi waaye di nekk nekkin wu dëppoo gëm boobu jaamu yàlla ni mu ware waaye defar xol ak jikko loolu moo jiitu ab yaram waaye bokk na ci liñ liñ xam ci yaru sëñ mooy boole xam ak jëf yooyu yépp ci ay waxam ak ak doxalinam ak ñim yar ñépp loolu lañ ci gis waaye bokk na ci yar ay nitam ci makaarimul axlaaq waaye yar leen nit ci ñu sukkandiku ci seen bopp manal seen bopp ngir ñu mën a am gore ci jaamu yàlla mën a sàmm seeni bas-bas mën a sàmm seeni loola ngir ca teg ko ci sukkandiku ci liggéey loolu ci yarub Sëriñ Tuubaa la bopp waaye yar nit ki ba du am benn complex ndax xam ne ku suñ borom bind def na ci yow ay man-man ak i xam-xam ak loo xam ne yow boo ko saytoo bu baax a baax kenn warul laa mën a raw ci àdduna kenn warul laa mën a raw ci lu baax loolu yëg-yëg boobu nga xam ne ñi sëriñ Tuubaa yar dëgg-dëgg da koy fekk ci ñoom waaye yar boo xam ne nit ki dafay ubbiku ci lu baax ak fu mu mën a nekk ci àdduna nekk yar boo xam ne mën nañ ne bu am na lu ñuy wax efficacité ndax jeexit yu gaaw lay am waaw jeexit yu gaaw lay am ci ñi nga xam ne ñoom ñoom la doon yar kon yar bu mel noonu àdduna daf koo soxla dañoo soxla dundal ko dañoo soxla jëmmal ko kon bépp projet boo xam ne mën nga ne la ko tax a jóg mooy dundal yar boobu dëgëral yar boobu sàmm yar boobu tasaare yar boobu loola kon soloom dana kenn kenn mënut a xam-xam àgg rawatina ñu toll ci jamono jii nga xam ne nag crise yi bari na lool jamono yi crise lañ nekk jikko yi nekkiin wi ak sax lu jëm ci wàllu koom-koom jafe-jafe yu bari la ci àdduna yu dund rawatina réew yu mel suñu réew yi kon jàpp naa ne loolu ku ko xool muy défi yi nekk ci suñ kanam tey am mu assasa bu mel nii boole ceeb yeneen yi nga xam ne moom mbirum baatin la ndax liggéey la ci boppam liggéeyam Sëriñ Tuubaa la waaye loolu nga xam ne rek lu àdduna bi la tey la ko seet da nga gis solo si nga xam ne am na ko kon buñ bëggee xool enjeu yi loolu mën nañu wax ne dañ koo maanaam dañ koo dañ koo dañ koo dañ maanaam généralisé la waaye boo xoolee ci biir murit yi xool ci biir réew mi xool ci biir lislaam bi ci boppam foo ci xool rek da gis li nga xam ne jàngu bi mën na koo mën na ko mën na ko mën na koo indi maanaam mooy ay enjeux yu nekk ci biir ay njariñ yu nekk ci biir bu ñu xoolee ci yoon wi daara ji walla ma projet bi dafay jëmmal gisinu Sëriñ Tuubaa ci yar boobu ma waxoon yar boo xam ne day boole jëf ak xam ak melokaan muy ay teggin ak i loolu nga xam ne sëriñ bi tënk na ko fenn fu nekk ci am jàngleen waaye daara ji dana waajal ñoo xam ne danañ mat sëkk ci taxawu diine waaye taxaw yoon wi ci jubbanti nit ñi ci jaar leen ci aw yoon ndax loolu dañoo soxla forme ñoo xam ne responsabilité yi ñu war a yenu ëllëg dinañ xam ñu koy yore dinañ ko am kàttanul yor waaye dinañ am man-manu yor ko ak compétence yor waaye daal di li mën a indil yoon wi ci dundal li nga xam ne mooy patrimoine bi ñu fi sëriñ bi bàyyi te ku ne xam na ne sëriñ bi ni fi bàyyi ci am njàngale adduna bépp soxla nañ ko tey te ni ñu ko war a tase ni ñu ko war a yaatale loola ay mu assasaat yoo xam ne dañ fay mën di gëstu di fa mën a def ay thèse ay mémoire loolu li ci gën a gaaw ci yaatal ko la te loolu bari na ñu soxla lool te mu jafe te xëy na yi mu am mu assasaat yu mel noonu wala institution yu mel noonu ñàkk gi ñàkk a bari tax na ñu am ay gàllankoor yu baree bari ci ni ñu war a yaatale njàngaleem suuf bi ni ñu ko war a dund tase am lu baree bari yu ci des kon lu mel nii bu xam bu bu bu bu taxawee dañuy am yaakaar lool ne dana lijjanti yu jafe yu baree bari yoo xam ne yu jafe woon la ci wàllu dundal. dono li fi sëriñ bi bàyyi ci tasaare ko ci yaatal ko ci àdduna bépp man cee jot waaye projet bi bokk na ci rek mobilisation bi mobiliser taalibe yépp ci jublu gën a soññi seen bopp ci liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam loolu am solo la ndax tey gis nañ ko loolu sëriñ ama mi ngi ko mi ngi ñuy teew domaine bu nekk compétence li ci gën a kawe tey ci ay taalibe dañoo manifesté wu wane ne ñu bëgg nañoo bokk ci liggéey bi ñëw bokk ci liggéey bi ci seen coow bu man bokk ci seen coow ci seen moyen bokk loolu nag lu ama am solo la ñi nga xam ne tey yàlla da leen jox man-man ñoom ñu jóg jàpp ci liggéey bi ci boo googu nga xam ne moom ci la leen yàlla baaxe nga gis kër yi yi aju ci kër Sëriñ Tuubaa yépp seex yépp ñépp tey tàkku mobilisé wu laxasaayu ànd ci ginnaaw Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir liggéey bi sotti loolu jàpp naa ne luy gën a li gën a jëmale kanam yoon wi la ndax yoon wi yoonu liggéey la yoonu pëstéef la ca gis nañ daara ji li nga xam ne feeñal na ko ci wàllu boobu waaye daara ji kon dafay bokk rekk ci luy jëmmal bëgg-bëggu sëriñ bi nga xam ne sëriñ bu su waxoon na ko ci Tuubaa daara joo xam ne lépp lu waaye xam soxlaa xamlu mën na ko fee xamlu see loolu nag boo gisee gis-gis bi sëriñ Muntaxa am mën nañu daara ji da koy jëmmal waaye du yam ci jenn daara du yam ndax ak sistem la bu yaatu am na ñoo xam ne ñu ngi ci nekkoon di def lañ man ba nëgëne ñu ngi ci nekk lii bu ñëwee nag dafay gën a yokk loole ba li sëriñ bi bëgg ci Touba mën a am waaye incha allahu xam nañ ne daara ji ak faculté yu ci nekk jëm ci wàllu métier maanaam ci wàllu formation professionnelle loolu dana doon loo xam ne dina dundal wàllu koom-koom dana ubbi ay bunt yu baree baree baree bari ci ñi nga xam ne noonu la ñu xamee mu ay liggéeykan liggéey boobu suñ ko su ko gënee tege ci xam-xam gën a tege ci li jamono indi ci ay jumtukaay yu xere loolu yaakaar naa ne mën naa yóbbu réew mi fu sore sore sore kon mën nañoo def mën nañoo dem ba li sëñ bi bëggoon ci ñun muy am autonomie ci wàllu koom-koom ndax autonomie ci wàllu koom buñ koy wax waxuñu ko ngir mu nekk comme ab capitaliste buy dajale alal waaye nga moom sa bopp ba ni nga war a dunde sa diine nga mën koo dunde sa diine nga moom sa bopp ba ni nga war a jaare ci principe yi nga gëm nga mën caa jaare noonu loolu liggéeyu koy ku ne xam na jéego yu bari yu waaye nag am na lu baree bari lu ci des loo xam ne bu ñu amee barab yoo xam ne dañ fay former nit ñi buy ay cadre ci wàll googu dina gën a gaawal liggéey boobu dina gën a gaawal dox boobu bu ñu xoolee ci jëmmi réew mi ndax lu ñu wax ne njariñ la ci yoon wi loolu njariñ la ci réew mi ndax ku ne xam na ne bu ñuy liggéey Tuubaa ak murit yi seenub liggéey lépp ci biir réew mi lay jóge ci biir réew mi lay dellu siwaat kon fu ñu àgg rek réew mu àgg foofu kon lu ñu wax ci enjeu boo xam ne dañu wax boo xam ne pour ngir yoon wi la day nekk enjeu boo xam ne pour réew mi la waaye bu ñu ci réew mi ci boppam mën nañu tudd yeneen yoo xam ne ndax daara joo xam ne projet bi dafay defar ab citoyen citoyen boo xam day xam li war a xam man lim war a man ba noppi am jikko yu rafet yoo xam ne dina mën a participer bu baax ci développement réew mi waaye valeur yi nga xam ne moom la Serigne Touba jàngale bu tasaaroo ci bu mu tasaaroo loolu njariñ la yu dul jeex ndax valeur liggéey valeur jàmm valeur mën a muñalante nga xam ne tasaamox ak yu mel noonu nga xam ne Serigne bi jàngale na ko